asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki internet bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci kàddu gi El Hadji Bour Géwal Mbaye le jeune reporter authentique mbokk yi yéen a ngi ñuy seetaan ci Ndindy Média TV ak Yaatal TV la seen leader di télé askan wi euh, mbokk yi tey ñu dikk ak yéen nag war leen a defal analyse ci combat bu doy waar boo xamante ni àdduna bépp ñu ngi koy waxtaanee waaye sénégalais yépp ñu ngi koy waxtaanee mbokk yi di combat di combat boo xam ne xale yi ñu boole ay mbëru tic-tac lañ ay mbëru tactique lañ muy kan ah gonek parcelle gi Modou Xarañ Loo Modou Xarañ Loo nee naa la kooku bu jógee àdduna jóg ba ba 26 ñëpp topp ko macha allah mbokk yi kan la war a bëreel Siteu xale bi nga xamante ni bii borom mafia yi Siteu borom ndox mu tàng mi Siteu bi nga xamante ni mooy borom teg-teg gi amul ragal mbokk yi mu nekk combat boo xamante ni dañu jël favori bi jox ko Modou xarañ loo ndax Modou Lo mën naa ni mi ngi soog a am favori ndax boo xoolee képp ku mu mës a bëre rek kooka la ñuy jël jox ko favori tey mu dajeeg gone jàmm gën gi ñu jël favori bi jox Modou xarañ loo Modou dajeeg ku ne nag Modou bëre tàkkusaan bu ne ñu xool Modou Lo bu njëkk ak Modou Lo bu léegi Modou bu njëkk bu daan ñëw ci làmb ji dañ daan gis mu takk fees dell am na yoo xam ne da ci daan am ndam waaye am na yoo xamante ni daaw ci génn bi mu demee ñëwaat nag indi phénomène bu bees indi façon bu bees di ci bëree gaay di leen ci daan Modou lan la indi mooy bu ñëwee du takk dara day ñëw bëreek yow ci xam-xam bëreeg yow ci technique bëreek yow ci doole xeex ak yow imposer la li mu bëgg def la ko dem Siteu nag ñëw ne ko ña ngay def loolu du man keroog signature bi yéen a dégg kàddu yiñ fa sànnante Modou wax na ko Siteu tontu nako ko Modou ne ko defo action ndax bi ngay bëreeg la de guerre so defoon action du deme nam fa deme Siteu ne ko nak yaw waxal sa waxi bop ta xam ne la de guerre ta lama ma la de guerre concerné wu la ba fa ay xalaat lamb ji li ci gëna a moy bi combat bi taxawé ñu bëri dañ ne won li du combat ñu bëri dañ ne won li complice la mais bi mu demee ba combat bi di gën a jege si gis nañ ne daray complice amu ci gis nañ ni ay kaddu yu doy waar mi ngi ciy juddoo muy ay kaddu ver verbal yu yéeme Modou mi ngi koy wax waaye Siteu mi ngi koy tontu ndax gis nañ ni respect doxatul ci diggante bi kenn ku ci nekk yaa ngi wax sa morom sa morom di la tontu kon ñu mën a xaar kombaa bu doy waar après Modou bu amee ci ndam ci kaw Siteu fan la mën a yóbbu Modou waaye Siteu bu amee ndam ci kaw Modou fan la mën a yóbbu sita Siteu nag bi mooy deuxième combat royal am ndax daf dañ ko jox Lac de ñu ne sita day tànte est-ce que Siteu dina génn ci Lac de Guiers keroog ba muy bëreeg Lac de Guiers ñëpp gis nañ li ci xew li liñ doon wax Moustapha Gueye la Tigre de Fass naan ko yaa daanu mu mel ne yaa daan mbokk yi ñu gis ci Modou Lo bu doy waar ndax Modou bu lewtoog yow ba cokkaas ba dagg lewtoo bi bu xasee ba dugg sa surpasse dootul génnati foofu dalay cokkaas def bagaar bu show ak yow ci biir bagaar boobu nag mën ngaa juum waaye nag si ta nekk xale boo xamante ni dafa mën tamit bagaar si ta bu bu wàccee ba bi mu wàccee ba tolloog la degeer après dafa indi la degeer ay complication tey si bu jàppee Modou Lo est-ce que Modou la mu war a liggéey lépp dina ko liggéey loolu tamit mbokk yi mu nekk question boo xamante ni dañu leen koy poser pour ngeen mën ko bàyyi xel waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñooy yor expérience ci wàllu làmb nekk ay expert de lutte ci biir signature bi ñu gis ci Modou Lo bu ñëw croiser les bras pendant des minutes yoo xam ne waxut defut benn jeu d'action toog jàpp boppam wane personnalité wane wane dignité waaye nag bi Modou defee loolu Siteu am ay paroles yoo xamante ni daf koy yëkkati lancé ko buur géwal le reporter ak ki nga xamanteni mom moy fadam site lan motax mu yëkëti kaddu yoy dat ni ñom ñaar ku ci dugg jamm gën ci jamm ak site lan mo waral wax joju ak lan la leen déggal ak lan la gis ñu def ko ci combat bi kon site combat bi amna fu ko tollu mbokk yi mu nekk nak lo xamanteni nit ñi war nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax ñu bari ñi ngi doon wax mbir mi complot la promoteur bi dafa complot ak ñaari lutteur yi site nak est ce que du bëgg dafa bëgg sang deram ngir yàlla mën na ko may tey victoire ñu ne ax lii la ñëpp doon wax complot la mais Modou tamit am na lu mu imposé wane na ni lépp lu mu mën a am teeruwaa bi ci loxoom di dox ak moom ba jëmmi jamono la bëgg kon mbokk yi mën nañu xaar ci komba combat bu doy waar ci seen diggante ñoom ñaar. wure ba dem na këng waxi mag dem dañ taali bàgg war mbaam lu waay doon jaay bisub keroog di nga ko wane te mbokk yi làmb dafa yéeme mbokk yi làmb dafa doy waar. lamb dafa nek mbir mo xamanteni bi nit ku nek dang ci war di veew nit ku nek dang ci war di bàyyi xel lamb dafa nek suñu sport national mais est-ce que lambi demb ak lamb tay amul différence est-ce que mag ñana ñu daan bëree demb euh, ba tey koy gis ci lamb ndax bu njëkk da nga daan gis mbeur ñew tak ay senghor tak ay seureum def ben show spectacle bu am solo est-ce que lolu mën nañ ko gisat ku ci waaw kon mbokk yi euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinañ leen indilaatal beneen émission ci beneen làmb ak yeneeni champion jërë ngeen jëf